comportement bi nga xam ni jullit bi moom la war a am ci weeru koor bi mhm. waaw comportement bi jullit war a am ci weeru koor bi laaj bu am solo la parce que koor dafa ñëw ngir defal comportement yi koor euh, benn séminaire la boo xam ne dafa war a diire fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent 30 ou 29 lenn rek moom lañ ci wut buy jeex mooy diplôme ragal yàlla moo ñu ragal yàlla la'allakum tattaqun la boroom bi wax dafa wax ne damaa farataal ci yéen koor ni ma ko farataale woon ci ñu leen ndax lan ndax bëgg ngeen amee ci ak ragal yàlla ragal yàlla mooy am jom xam nga tey bu ma duggoon ci biir néeg bi léegi mën naa faa fekk loo xam ne mën naa koo xéwloo muy ak lekk kenn nekku fa man rek maa fa nekk ak suñ borom waaye duma ko lekk lu tax doo ko lekk da ngaa yëg ne da ngaa woor waaye mënoon nga koo lekk te nit ñi duñ ko xam mais comme yàlla mi ngay wooral la yëg nga ne mi ngi lay gis daa bëgg na nga jàngee ci koor bu ñu woree itam boo wéetee ak boo wéttalikoo nga yëg borom bi mi ngi lay gis léegi nag nga defaru ci loolu koor loolu la ñu jàngal fi beneen bi ci des koor du ñàkkale a lekk ak naan loolu moo ci gën a tuuti ku woor sa làmmiñ dafa war a woor say nopp dafa war a woor say bët dafa war a woor say tànk dafa war a woor dafa war a woor mooy sa làmmiñ du ci doo ci wax lu jaaduwul xam nga tey ci ci ci jamono ji ñun suñu génération bi nit dana woor toog ci jotaay ñi waxtaan mu wax benn baat wala nit wax mu bañ cee rugg ñu wax mu ne damaa woor ñu ko woor ba ci lan woor ba ci lan gis nga woor ba ci bañ a wax lu ñaaw woor ba ci bañ a def lu ñaaw woor ba ci bañ koo dox yooyu ci weer yëpp lañ ko tere woon waaye lépp luñ la tere woon ci budul weeru koor weeru koor bu ñëwee dañ la koo fulal dañ laa bëgg nga gën a moytandikuwaat ci leen def ko lu baax benn yoon bu weeru koor ñëwee dañoo bëgg nga def fukkam mu gën a yokk yonent bi sallam nee na koo xam ne koor du tee muy wax lu ñaaw du tee muy def lu ñaaw suñu boroom amul soxla ci xiifam beeg mar wi moom xiif ak mar la ko tuddee kooku grève de faim rek la doon def mooy koo xamante ne dafa xëy suba léegi ko ba ngoon jot loolu nit ñaa ngi koy def même pour du weeru koor léeg euh, moom lu yomb la li jafe mooy koor boo xam ne nit ki da koy dund ci xolam da koy dund ci yaramam koor daa war a yar nit moo tax mu ne ki nga xam ne dafa woor bu ko nit saagaa wala nit ŋàññ ko dafa wax ne la bul fayu da nga ko wax ne ko damaa woor inni saayim man damaa woor du ma woor ba pare nekk fi di saagaante léegi loolu mooy kon comportement bi ñu war a amee ci weeru koor soxna si mooy comportement wu defar jikko comportement wu defaw bu koor gi jàllee dangaa war a yëg ni da ngaa war a yëg ni gën na maa baax bu dee da ngaa da ngaa nayoon nga gëm ne nga gën ni gën na maa tàlli parce que yonent saa sallam sayyidatuna Aïcha soxnaam la nee na yonent bi ku tàlli la woon ku tabe waaye nee na weeru koor masaana ñëw day tabe ba mel ni ngelaw maanaam lu lu mu yor joxe ko yow itam a jàng loolu ci weeru koor loolu mooy comportement bi ci koor ci bu ma koy tënk euh, waaye daal li ma bëgg a wax rek mooy luy defar jikkoy doomu aadama la waaye koor du bàyyi lekk bàyyi naan dong bàyyi lekk la bàyyi naan bàyyi wax ak jëf jëpp joo xamante ne jaaduwut ci diiru weeru koor gi waaw ci colin gi mooy comportement effectivement euh, xam nga léeg-léeg colin l'islam daf ko dafa am nu mu ko tuddee aada am nu mu ko tuddee am na loo xamante ne boo ko solee ci Sénégal mooy solo waa Sénégal mooy suñu aada boo demoon ci yeneen réew da ngay gis góor gu wodd loolu am na nga gis jigéen jigéenu arab mu sol tubay ñun suñuy jigéen bu ñu solee tubay boo demee ci aada ji ca suufa suuf ñun la jigéen daa war a jigéen daa war a war warta sol tubay li ma bëgg a wax mooy col gu yiw rek la lislaam xam col gi nu mu mën di doon na doon col gu yiw col goo xamante ne bu mu xat bu dee jigéen ba tafu ci yaramam bu mu yaraax ba ñuy gis aw yaramam bu dee góor muy lu muur li tàmbalee ci jumbu xam ba ci ay wóomam bu dee jigéen mu góorgóorlu ci comportement ci col kenn laayal kattanam ci weeru koor mm-hmm. gis nga bul bul ne seytaane mooma man wala nit ñi ne la xanaa weeru koor wee tax ngay sellal nga bañ loolu ba bañ a sellal weeru koor jar na sellal weeru koor jar na nga sa tuba yu dagg yeeg sa tuba yu xat yaag yu gàtt yaag yëpp nga lem ko denc tey sol lu jot tey mël fawu ñaan borom bi subhaanahu wa bu ñu waree bu koor gi dafay jeexital ci yow da nga fay jaare di sol lu jot ba faaw bu ñu waree nag képp koo xam ne weeru koor dafa jot nag mu ne damaa changé comportement yee di sol lu jot di ko di di ko arabal ba mu ba mu mel ni mu war a mel ñu waree mu mu solaat ay dagg it defaat yaramu neen na yëg ne da doon xiif ak mar rek waaye wóorul bu kooram nangoo moom lu bon lu mu bàyyi woon bu ñu waree du ci delluwaat. Mm-hmm. Mm. mais lan la jullit di matale ba kooram ñu ni mat na wala nangul ko. waaw koor gu ay signe lay doon ay signe lay doon ci nit ki mooy yi ma wax léegi jaamu yàlla gu nangu yowmal xiyaam lañ koy xam bu ñemee ci suñu borom subhaanahu wa taala mu ne ñu sa kooru 2021 gi moo nekk nii nga xool ko mu nekk engaar bu rëy. ci ay yiw nga ne sama kooru 2021 baa ngi nii wala sama julli yaa ngi nii wala sama sarax yaa ngi nii bu dee ci àdduna day am jeexital yu muy def ci nit weeru koor bi mu jeexee rek borom bi dane bu leen lekkati alal yu ngeen moomut kon képp koo xam ne bi nga wooree yaa moom sa lekk ak sa naan ci bëccëgu weeru koor yàlla ne la bàyyi ko nga bàyyi ko bu ñu waree war na loo moomul nga bàyyi ko mm-hmm. loolu kon buñ buñ bu ñu waree natal sa bopp pour nga xam ba xam sa koor na am déet est yaa ngi lekk alal jàmbur ba léegi wala déet est bi ñu waree yaa ngi dugg ci lu sa yoon nekkul ba léegi wala déet est-ce que bi nga nee bàyyi naa jëw toog ci bureau bi bi ñu waree da ngaa ñëw rek tàmbaliwaat waa ji nangam waa ji nangam am naa fi cas léegi ay groupe bi sax ay cas la léegi nga xamante ne te cas moom mooy wax ci deru jàmbur rek ñu cas ba doyal après indi beneen cas léegi yooyu euh, bu ñu waree nga bàyyi kaa yi nga yëg ne sa koor gi nangu na bu ñu waree nga nga xëy di wër cas ba ngoon jot nga yëg ne da nga